tóor Xaasim laay maa ngi tóor asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey mercredi 24 avril 2019 ñu ñëw ak ci yenn kaay yi comme ni ngeen koy amee chaque jour mercredi mooy lan ci olof bookar mercredi mooy alarba ñu ñëw ci yéene kaay yi ànd ci ak ñu ci doon àndal muy MSD Prestige MSD Impact Bokar maa ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku Sénégal rawatina mbokku internet Lutte TV yëpp ngi ko waxee rek télé mercredi 24 avril 2019 si ànd ak nag MSD Prestige MSD Impact. di jaay ay oto di loué ay oto di jaay tamit ay pièces yaakaar naa ne yéen ñëpp xam ngeen MSD Prestige xam ngeen MSD Impact. MSD Prestige Lamine di loué oto di jaay oto MSD nga xamante moo di pièces détachées. ku yor sa oto Lamine mu am problème pièce boo fa demee Lamine ñu jaare pièce bu ñu amul pièce bi sax defaral la commande bi bitim réew livré la ko si ni mu gën a kaawee. ba pare boo amul njëgu oto ñu luyee la oto. boo amul njëgu oto Lamine war a dox say soxla am yoo xamante ne da nga ko war que ça soit nga war a dem weekend wala nga war a dem xew Lamine boo fa demee ñu lee la oto bu mucc ayib nga dem Lamine si jàmm ak salaam ñëpp si waat koy wër loolu amatul fenn 15 jours la ko MSD Prestige di wër andi la ko jours Lamine mooy mu nekk Lamine fukki fan ak juróom Lamine lan lan lan lay wax nga xaar Lamine ñu dem wuta wëral la pièce bi Lamine nekk ñu andi la ko si li mu gën a gaawee MSD Prestige rek a mën loolu du MSD Impact yàlla na seen jàmm yàgg ku soxla seen numéro téléphone yéen ñi nekk Brésil ak li ko wër mën ngeen a def plus 55 119 64 69 56 42 beneen numéro bi mën ngeen a def ndax fixe la 33 835 72 83 masi la jëlal numéro baa ñu ñëw ci yenn kaay yi ànd ci ak ñu ci doon àndal muy waa sunu làmb di suñu naataango waaye nag dañu njëkk ci site internet Senego ndax dafa xëy jox ñu benn. xibaar di ñu wax ni Gris Bordeaux léegi te euh, ma nga RFM ma nga fële walfu walfu am na fi émission bu mu fay def mu mel ne Gris Bordeaux tamit mi ngi xalaat ne bu bàyyee bëre tey war naa am feneen ci leneen lu mu jàpp. Gris Bordeaux la mel le tigre de Fass wala le tigre de rek la waa Sénégal la mel ñooy xamal ne daal que ne fi mu toll nii hmm. a nekk si benn télé bu nga la mel xam naa ne. émission eh waaw di xam naa daal hmm. eh, si lamb di daal lay el di wéy di liggéey ba tey rek. danañ ci gën a gëstu un ci ay yaatal yaatal ndax bëgg nañoo dem ci moom mu leeralal ñu loolu wax ndax soxla naa ko interview ndax kooru mbër it mi ngi ñëw bu leen ko fàtte kooru mbër ni ngeen ko doon amee daaw ndogu mbër waaye nag dañuy ñëw ci journal sunu lamb journal sunu lamb Tapha Tine la xëy fësal ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé lii nag seen premier combat la moo tax Tapha Tine Ama Baldé mu ngi koy dugal ku mu ngay reculer waaye nag bii ba boolewaat lañ leen wala boog presque ñu boole ñu boole leen Abdou Bakhoum mi nga xamante ne moo yor Ama Baldé moom mi nga xamante ni da ciy kaani adversaire bu Ama da war a bëreel mu xëpp ci kaani wala Eumeu Sène wala waa Pikine ku ñu bëreel rek moom moom day yokk ci cere ji suuf waaye nag nee na Tapha moom dañ koy duma ba pare wan ko soog koy daan danañ ko duma corriger ko wan ko yoon. kuy tëgg sa bopp Lamine doo juum kuy dóor sa bopp du saf Abdou Bakhoum nag Lamine li mu xamle mooy que ne daal Tapha Tine daal Lamine kii di Ama Baldé dina ko duma duma yu métti dina ko recadrer dina ko teg yoon ba pare door koo daan Lamine. loolu de yaakaar naa ne bu amee moom dana métti lool ci Tapha Tine duma la ba pare teg la ci yoon daan la waaw duma la teg la si yoon daan la Lamine loolu xam naa ne moom Lamine tafaatin xam naa ne xalaatu loolu sax wala tey amaa tegaat ko loolu noonu noonu tey Lamine dina ko jaral lu ne waaye Abdou Ba xam daal li muy xamle daal mooy que ne combat bi mi moom moom moom Lamine wala combat bi ñu jub si nii Ama Baldé def lépp bëre duma daan loolu mooy seen bëgg-bëgg yaakaar naa ne mooy bëgg-bëgg tamit waa kër Tapha Tine waaye nag li mu jàpp mooy dafa mën koo leeral mooy combat bi moo tere mu a taxaw ay détails a la ko bëgg kon yaakaar naa ne bu yàlla defee jàmm rek ci saison bi lay nekk. bu yàlla defee jàmm la man ci saison bi lay nekk te war naa mën nekk ci saison bi sax parce que ñaari mbër nii ñi Lamine ku si nekk gis nañ ko jamono yi bu yàggul um, ku si nekk nga ci forme xam naa ne ku si nekk pare nga Lamine pour bëri ay wattaay ndaw ndaw lay nekk rek parce ay champion lañ ay athlète lañ te hmm. athlète Lamine tout temps da pare. du mën a ñàkk ki nga xamante ne mooy papa cuun papa cuun di agent wu tafaatin moom tamit leeral na ci waaye nag la mu wax la mu wax moom mooy dara ba léegi dara sotteegul ba léegi maanaam ne ba léegi daal ñoom ñi ngi ci wax bi dem ak dem ak ñëw bi waxaale beeg nu muy demee contrat yeeg signature yi xam naa loolu mooy détail instant bi Papa Thioune mi nga xamante ne mooy agent wu Tapha Tine wax na ci te mag ñëw beeg waxaale beeg Lamine ñu ngi si ba léegi rek jàppandalagul daal maanaam si li nga xamante ni Lamine Moustapha Thioune moom lay xamle kii kii di Papa Thioune Lamine moom la nekk di xamle Lamine seen digganteeg Paf wala seen digganteeg Papa Abdou Fall mm-hmm. maanaam daal ñu ngi wax ba léegi daal mais daal lu concret amagul xam naa daal li si des daal xëy na nañ xaarandi rek fii ak ay fan yu néew dinañ si am lu leer. Modou Lo ma nga woon États-Unis fan yii yëpp ma nga fa woon wala boog lu tolloog weer lu teg waaye Modou ngi ci dëkk bi léegi ñibbisi na li ko fi andi nag ngoon lay leer ndax dafa war a def face à face ak Eumeu loolu tey la ci mercredi bi nii. combat bi ñu ngi ko jàpp vingt 28 juillet ki nga xamante ni ñoom ñoo ko tëgg di waa OK Africa tey danañ jàkkaarloo Eumeu Sène ak ki nga xamante ni mooy ak Modou loo waaye nag combat bi. dara du leen ci rëcc ci luttetv.com jàkkaarloo bi tamit dara du leen ci rëcc ci bokkaan. dara du leen ci rëcc Lamine combat bi le 28 la waaye tey Lamine ñu war a def seen jàkkaarloo ginnaaw bañ njëkkee toog def signé fi mu toll nag Lamine tey lañ war a def jàkkaarloo ku nekk am la wax sa morom ku nekk wax li nga namu ku nekk wax la ni mu nar a waajalee combat bi mbokkam ak astafam Lamine du mën a ñàkk nag li may bañ rek mooy ñoom ñaar ñu nekk fa ku ci nekk tey di raaye di raay sa morom ndax comme combat bu njëkk ba ba muy soog a taxaw dañ doon siñante rek ñoom ñaar koo wax ku tudd sa morom mu siiñ buñ la posé question ci sa morom nga siiñ waaye nag tey damaa bëgg ñoom ñaar ñu ñu ñu xas-xasloo foog ñu xas-xasloo ndax bu jour ba ñu jëf ñu jëflante bu baax a baax a baax xas-xas loo Lamine nappante day war sax parce loolu Lamine bokk na si liy jaay combat des nga gis mbër signature mu am ay kàddu yu muy wax ñi ne diw dafa dafa yaradiku wala dafa ni dafa naa fekk ne promotion wu lamb am lay li ñuy naan bataille psychologique gerdoo moo ba gerdee moo ba nga xamante ni moo tax tey amateur yi moo tax ñiy sawaru tool si combat bi sax gën see mën a sawar gën see nappante waaw su ko defee daal ñëpp mën a soobu si pare nag la Sokh laaj. Lac la Sokh laaj Sokh nag Lamine fi mu dal baaxul parce que pour man booy laaj da laaj mbër boo xamante sax mën nañ ne instant bi mu ngi si en activité parce que Lac Rose gis nga ginnaaw defet bi mu jógee fajoogul mu ngi woon si blessure gaa nag mu ngi tane mais fajogul faj bu tax daal te ñu ne pare na ba war a mën a jël avance fi mu toll nii Sokh daal Lamine li ñu koy wax naxooli feneen feneen fu mu fu mu a fu mu gën a safee Sokh ndaanaan la Sokh moom bëri na adversaire Lamine. mais pourquoi pas Sokh général bu général bu Malika Lamine lamb la Sokh ak ñeneen ak fi Lamine lamb parce que moom xale la te na teg la woon na ñaari defet mais barki démb wone na boppam digganteem ak Ndandi Fall kon tey na na ñëwaat wonewaat boppam jël combat Sokh wala jël combat de relance boo xamante ni da koy yëgal ci kaw. leeral Sokh Pambaay wala leeral soo ko Pambaay. par avertissement la jeexe woon de combat boobu. par avertissement la jeexe woon Pambaay gis nga ko jóge na si combat waroon na bëre sax ah, moo ko raam daan ah, waaye soq na leen ñoom ñaar ñëpp daaw. waaw doomu daan leen ñoom ñaar ñëpp daaw tey day jaar ñoom ñaar ñu bëri sax ku si génne tamit pourquoi pas nga laajat revanche si doomu daangu. du mën a ñàkk waaye nag journal bi war nañu Moussa Ndoye mi nga pare na ak Garga waaye nag Moussa Ndoye tey day dalal presse bi open presse am la koy def Garga Mbossé war ko def suba. waaw Moussa Ndoye Lamine open presse am la ko war a def rek sa yaraax Lamine daaw maa fa maa fa teewaloon Lutte TV tey tamit xam naa ne Lutte TV nga koy waajal waaye mu war a jàkkaarloog presse bi wax li nga xamante ni Lamine moom la namu moom la waajalee combat bi ak ay mbokkam Garga Mbossé tamit gis ngeen ko moom suba Lamine la war a jàkkaarloog li nga xamante ni Lamine moo di Kalma Ndour borom Kër Masar Mbañik yow nag yaa ngi fi wax naan ay aale borom Kër Masar Kalma Ndour mi sax li mu am Kër Masar aale moom ngay wax amu ko waaye Kalma Kalma Ndour moom mbaytin la soxla ak kàmm gi. Kalma Ndour Lamine amul dara Kër masaar kii nii xam nga fu ñu naan mar ko. fa la dëkk fa la am le champion Kalma Ndour foog naa ne mu ngi si juróom benn combat yoo xamante ne Lamine yëpp yàlla da ko si may ndam fi mu toll nii nag Lamine mbaytin numéro 2. ak Gamou Gueye numéro 2 ñoom la nekk di laaj ñoom daal la wax ne ñoo nekk si colima am xam nga li collimateur. collimateur déedéet. daal ñoom daal la visé mooy lii lii na ci fetal nga xam ne fa ngay xool a a xam nga mbaq. mbaq waaw xam naa mbaq bu baax la. lanceper mbaq si lanceper lay nekk Lamine. moom laa xam ndax man nga may wax loolu wala fiir fiir mas fiir tiir ah loolu moom Lamine ku ne xale jaar nga si Lamine. ah déedéet ku nekk ci xale jaar wu ci am na xale yu ci jaar. xale kaw kaw ah, xale kaw kaw yi si jaarul bokk bëriwul. lan ak lan nga mas a fiir yow. man kay lépp laa fiir Lamine. fiir nga kaña. lépp lañ daan fiir fiir nañ kaña picc ak lu ne fiir nañ ko Lamine. mas nga lekk kaña. non kaña moom mosare mosuma ko lekk nag. picc picc moom lekk naa picc. kon nag kaw gu mos a lekk kaña ci yow rek laa ko mos a gis lekk na kaña ba taay. ah man de mosuma lekk kaña waaw oh, bu moo lekk kaña nag xëy na kaña ko def noonu noonu gis nga biiram. gis gis nga biir bi. Ah. est ce que du est ce que du kaña bi ko def loolu sax Lamine. non day noos loolu ay ginaar la ay ginaar la ko jàpp. ginaaru élevage yi nee naa ko muy abdominaux. Babacar bu léewtoo. ñoo ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy ordinateur ndax léegi mi ngi wane boppam bu baax a baax ci bëri simple bi gagné na ñeenti nag ak 10 000 francs koy wax Lamine dëkk si côté Ñaaxar Ngaan moom tamit dafa dëkkoon si blessure parce que dafa gaañoon si zone ba opéré mais ne tey depuis loolu mu reprendre moom tamit moo ngi wone moo ngi moo ngi si centre boppam parce que moo ngi gagné moo ngi finalu le champion Mamadou ñu koy woowee ordinateur Lamine combat bi war a am dimanche diggante Moussa Ndoye ak Garga Mbossé ki nga xamante ne mooy Mor Fadam di suñu papa moom tamit wax na ci Mor Fatam Lamine suñu papa fi mu toll nii daal Lamine yi wala ñi nga xamante ne jaar si làmb Lamine ko si talal micro fi mu toll li wala ku si nekk rek Lamine fi mu toll bi war a dox diggante a dox diggante ñaari mbër yi. du mën a ñàkk jàpp naa ne moom dafa technique ba pare ba pare am na xel mën naa bëre waaye nag li mu jàpp mooy Moussa moom moo gën agressif waaw Moussa Ndoye moo gën a agressif nee na Moussa Ndoye tamit sax moo am lëng tuuti lëngoor d'avance li ko jiitoo mooy kon xëy na kee nekkoon na si année balance jóge si victoire kii gis na ko daaw bëri na jóge si victoire moom tamit xëy loolu tax daal mu ne daal moo am tuuti lëngoor d'avance Makhari Mbengue nekkoon écurie moom tamit dafa ñàkk bakkanam démb ñu ko ñaanal yàlla yërëm ko Makhari Mbengue Lamine nekk nekkoon écurie Fass Lamine ñu koy jaale waa Fass di ko jaale waa axlu làmb yëpp. ñàkk bakkanam yaakaar naa parcelle la dëkk sax su ma waaw ñàkk bakkanam nag fële na sa sabado la fële daal foofu daal la ñàkkee bakkanam ñu koy jaale waa Sénégal di ko jaale mbokkam di leen ñaanal sarax yi yàgg seen loxo Lamine. du mën a ñàkk ñu nuyu gars yi suivre le tv point com yëpp fu waay mën a nekk ci àdduna bi comme ni ngeen koy defee chaque jour rek xamante ne mooy laay def coach su jamono ñu ngi lay nuyu ak Serigne Mbacke Mbacke soxna Anna Cheikh Bintou Fall sang bi ñu ngi lay nuyu. laay bu def ñoo ngi koy nuyu di ko ziar borom Sandaga di nuyu Serigne Mbacke Mbacke di ko ziar mu ñaanal ñu di nuyu suñu grand layti seen borom mbélo ngi di nuyu Billy Bass waaw di nuyu sama jigéen faagee rek di nuyu ki nga xamante ne mooy suñu grand maam Waly seen suñu grand bu baax la di nuyu waa Fadia yëpp di nuyu ñoom Lamine xam nga ñoom Daas Ndiaye di nuyu nag sama frère Yacine Tassar ak grand ñi nga xamante ne moom la ñu woowee Marcel Diagne Lamine borom jam ñaajo. Marcel Diagne ñu ngi koy nuyu Marcel Diagne patron Birahim bébé Birahim papa de ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Daouda tin Daouda yi tey ñu ngi fi de. Daouda yi Arouna Camara ñu ngi koy nuyu. Kéba Cissé Mamadou Ndiaye Yoff Cheikh Ndaw ñu ngi lay nuyu di nuyu Saliou Guèye Mamadou Diallo Aziz Sey ñu ngi koy nuyu Benzema Deme ak ki nga xamante ne mooy. Buraco waaw Buraco moom nan lañ koy tuddee. Buraco Buraco bi ñoo ngi koy nuyu Lamine di ko ziar di nuyu Adama Sarr di nuyu Mor Diakhaté di nuyu Maas Lamine di nuyu Boubacar Sow ah, ñoom Ngom Ngañ ñoom Cissé Ngane borom Latmengue. di nuyu aale borom Kër Masaar rek daaw da ngoom Yoro Kanté maa ngi koy nuyu di nuyu Ibrahima Wade borom 36 ak doomu ndeyam Matar Kanté borom Bilbao. Matar Kanté ngi nii ñu ngi koy nuyu moom tamit di nuyu ki nga xamante ne mooy Mamour Gueye taalib Serigne Mbaye Sy Abdou Cissé Mamour ñu ngi koy nuyu di ñu ngi lay nuyu Cissé Mamour Saliou Gueye ñëwaat na ñu ngi nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Tafa Jongo le sauveur. si sa boobu Lamine Padois la nekk mais Lutte TV rek lay dundee Lamine Lutte TV lay teewlu saa su ne Lamine. si sa membre yaa mën ñëpp. membre Cissé waaw ñoo ngi koy nuyu di ñoo jël pay waaw waaw waaw ñoo jël meilleur ñu ngi leen nuyu di nuyu waa jàmm gën di nuyu Khalilou Ka Fallou Ndiaye Itali moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu tuuti yaay Sarr combat bi nag gars yi pare nañ Omzo bu Garga ak ki nga xamante ne mooy kii Saliou. ak Saliou non Serigne Diouf Serigne Ndiour Serigne Ndiour. Serigne Ndiour mooy Magu Saliou Ndiour mooy Magu nag xam naa ne bëri na Baye Saliou ko Espagne ñu ngi koy nuyu mais Leyti Sène nee ma nee na mu bëri ko. mais Leyti Sène foog mu adversaire mais ah. nag Leyti boo ko joxee como como yi da leen di escanté. Ah, man dinaa wut Leyti Sène da doon bëre de da doon bëree taay kay damay bañ du ko wutal ku ko. non non moom kay nee na nga wutal ko juróom-ñaari nit mu a pour mu mën a bëre. kon Wakana Fall ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante mooy Alioune Lo Bass borom Kër Massar Tafa Gueye Tigre Noir di nuyu ñëpp daal yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di jox ñëpp rendez-vous suba incha allah.